ما بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه من نين قرت بك العين يا ليثا قد احتجبا bisarihi kullu laysin kana muqtariba qarat sedna bikk ci yow aboubacar mboub al aynu bat bi sun qol sedna ci yow ya laysan yow gaynde qad ihtajaba boob yiiruna yiiruna mooy nëbbuna bisarihi ci yëmboom mooy ci sabam yëmbu kullu laysin bépp gayne mooy fanilu qad ihtajaba kaana bom nekk na muqtariban daa aji jege mu ne yow Babacar Mbuub sun xol sedd na ci yow yow nga xam ne gaynde nga koo xam ne su yëmboo su sabee bépp gaynde bu ko doon jéem jege rek day làqu day nëbbu fa man ra'aaka li fartil xiqdi gayra ali fala araahu wa imbaha minan nujaba fa man ra'aaka ku la li fartil xiq di ngir ëppug bañ ga xayra aliyin ngay kudut aliyu ibnu abi talib fala araahu du ma ko gis man minan nujaba i mu bokk ci tànneef yi wa in baaha donte ndamoonte nag yow nee na képp koo xam ne jàppee na la ngay kudut saydna ali ibnu abi talib ci njàmbaar ngir bañ gu ëpp gim la bañ kookee dee du tànneef du baax waaye képp ku baax rek jàpp na la ngay jàmbaar joo xam ne yaa fi wuutu Seydina Ali ibn Abi walla wala yaa fey moom na Ali ibn Abi Talib jamono ni mu jàmbaaree woon sun jamono jii tey yaay moom képp ku la jàppee nag ngay ku dul moom rek ngir bañ la kooku moo nekkut tànneef moom moo baaxul moo sikk ay xalta li shaabi waayan kaana fi sinatin بمنطق كل من يظفر به غلبا ay qassa yeenga li choix bi ñaal peuple bi wax yan conscience conscience mooy sago kaana bom nekkoon na fii sinatin ci gëmmintu bi mantiqin ci làmmañ woo xam ne kullu man kullu man képp koo xam ne yafar dana tuufu bi ci moom xalaba mu not mu gañe mu ne peuple bi seen conscience bi doon nelaw wala bi gëmmentoon yaa ko yee te yeew ko nag ci làmmañ wu fasa làmmañ wu leer nañ wu am teggiin wu mën a woddu wax làmmañ woo xam ne képp ku ko am rek kum séqal noot la kum séqal gañe la ndax làmmañ wu dëgg lay wax làmmañ wu dafa am teggiin làmmañ wu dafa am sutura làmmañ wu dafa leer naññi te lu muy wax lu ne dafay am preuve yu leer naññ yu wér yu dëggu أيقظت للشعب وعيا كان في سنة بمنطق كل من يظفر به غلبة وقدته لمزايا لا يكون له كرامة إن يكن عنها قد احتجبا وقدته توامان غوكو موم بوبل بي لمزايا جيم تي أي نغنيل أي فالور لا يكون دين موي نيك لو نيل بوبل بي كرامة tiraanga ak tedd nga i nekkun bu nekkee xadix tajaba diiru xanxaa walis leen mooy walis ngëneel yooyu nga leen jëmee mu ne yow Babacar Mboup yaa ngi woomat peuple Sénégal jëmee leen ci ay ngëneel ay valeur ay may yoo xam ne duñ am tiraanga mukk-mukk su fekkee war nañ gannaaw ngëneel yooyu nga leen jëmee suñ nanguwut a jëm fi nga leen jëmee suñ nanguwut li nga leen di woo duñu am teraanga mukk ñoom peuple bi ci toroxte rek ak ci njaam ci li ñuy dëkk fa ma tarakta lahu wallahi maadiratan in lam yadubba an il axlaaqi muhtasiba ma tarakta din ngay bàyyi loxoo ñeyal ko moom peuple bi wallahi gëñ naa ko ci yàlla maadiratan doglu ngànt mu ne peuple bi amul luñ wax de amutul dara luñ la mën a dogal ngant in lam yatub bu fekkee jañut mooy aarut anil axlaaq wala si jukki yi muxtasiban mbir moom muy aji sàkku tiyaaba peuple bi daal suñ àndut jóg taxaw di aar jikko yu rafet yi di aar valeur yi amatuñ ñoom luñ lay wax ndaxe yow li nga war a def dem ko ko ba mat sëkk xamal nga leen mbir yi ba leer ci seen bopp yi xamal nga leen it yu ban yi nga xam ne ñu ngi ñëw te bu ñëwee ñëpp la ñuy yàqal Ababacar Mbuub لهمري قد رجعت لنا جيلا تغرب كي لا نعرف Mbuub ey Abaa Mbuub la gëñ naa ci sama dund wala sama dund mooy sama ngëñ la amri xasami xarajata delloo si nga la naa ñeel maas goo xam ne taxarraba tumaranke woon na kay laa naarifa ngir duñu xam alkura ba ay tiis ak i mu ne kay Abaa Mbuub maas gi nga xam ne tumuranke woon na ci jamono rawatina fii ci Sénégal yaa ko delloo waat muy mbooloo moo xam ne dañuy jog di bañ lu bon di bëgg lu baax di jéem a taxawal lépp lu baax di jéem a dénoncer lépp lu bon ngir ñu bañ nekk ci tiis ngir ñu bañ xam sax tiis waxuma di ci dugg waaw maas gu mel noonu daal tumuranke woon na fi waaye yaa ko delloo si laqad rajacta lana jiilan tagarraba kay laa naarifa alkuraba bal sirta aqraba minhum min aqaaribihim i sirta sayrahumo bilxaqi muntasiba naka noonu it maas gi nga xam ne tumuranke woon na mooy ñu mel ni Serigne Touba ñu mel ni Serigne Malick ñu mel ni Ala ñu mel ni ñooñu ñu doon maas gu tumuranke ci mbaax ak ci valeur tumuranke lool ci jamono ji yaa leen delloo waat ba am na léegi ñu jéem a xañtu seen i jeexit di jéem a mel ni ñoom mu ne nag maas googu nga xam ne delloosiwaat na leen maas googu nga xam ne delloosiwaat nga leen yow yaa leen gën a jege sax seeni jege ñaale ndax yaa jaar fañ jaaroon taxaw temm ngir aar dëgg taxaw temm ngir taxawal dëgg taxaw temm ngir tasaare dëgg ba li fi nekk sirte mujj nga aqaraba di gën a jege minhum ci ñoom maas googu min aqaaribihim ci seen i jege ñaale yaa leen gën a jege seen jege ñaale lu tax ndax yow yaa jaar seen yoon am na ñu bokk ak ñoom nekk seen sët te jaaruñ fañ jaaroon is ngir sirta dox nga sayruhum kem seen ak dox mun tasiban mbir moom ngay aji samp bil xaq ak dëgg falaa tubaalil ula law asaru xomaran la absaruhu amiran lil hawantadaba ndeysaan ñii nga xam ne ñu ngi fi te buñ fekk xoon Seydina Omar bun Xattaab dañ koy foog muy buuru bànneex muy buuru seytaane muy buuru topp lu bon ñooñu bu leen faale ndax bu fi Seydina Omar nekkoon yi du tax ñu topp ko ndax day wane kii day politique kii lim nekk du lu baax bu kenn topp comme nag yow da ngaa mel ni Seydina Omar ci njub ci woote jëm ci lu baax te seyt Seydina Omar bu fi taxawoon moom ci boppam du tax ñu ànd ak moom du tax ñu gëm ko dañ koy wan gannaaw kon yow ñooñu bu leen faale teew rek yow li ngay woote na ko woote taxaw taxawaay bi la war ñi nga xam ne ñoom la yàlla dafal tawfee ñu am saara ñoom daañu la wuyu daañu ànd ak yow falaa tubaali bul faale al ñi nga xam ne law xaasaroo buñ jamono wante woon ak xomaraan Seydina Omar da ab saroowu ñu gis ko amiran muy buur boo xam ne intadaba wuyu na lil hawa bànneex mu ne bàyyi leen rek ñu wax li leen di sax ndax seytaan dafa am ay xejj yoo xam ne da di sax ñuy wër di ko campagnal ñuy wër di ko wootel nit ñi ñu ànd ak moom jëm kambu safara wa inna shayatin la yuhuun ila awliyaihim li yujadilukum wa in atahtumuhum innakum la mushrikuun dax mu bàyyi leen yaqooloo ñu wax maa la nga xam ne iblisu iblis laqanahum sana leen ko sax sana leen ko ndax luñ mën a wax rek peuple bi moom xam nañ xalaat ak jis jis boo xam ne su feeñee rek nëbb seeni jis jis ku teg seeni xalaat ñoom ñooñu nga xam ne ñooy bàjj ni góor jigéen yi teg xalaatu peuple bi nga xam ne ñooy bañ lu bon loolu xalaatu peuple bi lëng seeni xalaat wat leen ba ku xoolee da xam ne ñoom bàjjenu góor jigéen ñoo nekk ci njub ñoo topp lu bon ngir àllu aduna ngir texaadi fa ina li chambi naka ñeel na peuple bi ra'yan xalaat boo xam ne xajaba yiir na mooy nëbb na ra'yahum seen xalaat fa ina li chambi naka ñeel na peuple bi ra'yan pexe moo xam ne xajaba yiir na mooy nëbb na ra'yahum seen pexe ñoom mooy ñu topp iblis bàjjenu góor jigéen ñi wa anta rahma ara jiifin lahum kasurat mahbubu kulli fatan yastankiful kadiba seettt ara jiif mooy al axbaarul kadiba ay xibaar yi fen ay wax yu dëgg ay sos mu ni yow gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoom lay yebal ñuy wër donte ñu ngi wër di wax ay xabaar yoo xam ne dara du ci dëgg di ko jéem a wutal ay lay ay preuve teewul ñëpp la bëgg mboolem ñi nga xam ne jombalu nañ fan mboolem yi jomb fen daal bëgg lu baax ñoom bëgg nañ la teewul nag am bàjji na seytaane yoo xam ne àllu àdduna moo leen jiital nger la ñuy dundee ñuy wër nag di wax ay xibaar yoo xam ne yépp ay fen la ci rajo yi ci télé yi ci réseaux sociaux yi ci fu nekk wata mu ne ko anta yow Babacar Mboup raxma araaji fin ànd ak ay xibaare fen mooy raxma bi ñuy firee malgré malgré lahum ñeel leen kasurat yooyu bëri nañ ànd ak loolu lépp yow max boobu kulli fatan ku ñu soppi bépp cam sa ku ñu sopp bépp cam sa yastan kifu boobu dana jombulu alkatiba fenn loolu lépp lu mu am am daal yow daal bépp cam soo xam ne jombulu na fenn rek bëgg na la waante yow raxma araaji fin ay xibaari fenn lahum ñeel leen ñoom ñu topp iblis kasura yooyu bëri nañ max boobu kulli fatan soppe bépp camsa nga yoo xam ne yastan kifu dana jombulu alkasi ba fen kon nag Sénégal képp kuy taarixal maas gu baax gi taxaw di xeex góor jigéen ak lu bon ci Sénégal ak di jéem arji ar ji kuy rafet yi faaw bindaale la wala sax yow lay jiital su la rek na xam ne bindul dara taarixam dara baaxuti waaw Sénégal daal képp kuy taarixalati maas gu jog di xeex góor jigéen ak lépp lu bon ak di xeex saytaane ak ñi ànd ak moom ak di aar jikko yi ak valeur yi su la jiitulut ca ñamoy bind bindugul dara fa man yu warrix ku taarixal li xaatal jiili ñeel gile su mën si topp mu fàtte taarixa siiratika taarixub sa doxalin al abha gi gën taaru fa maa kataba bindul ko moo bindul dara ñooyam fa man yu nga jàng fa man yu arrix li haasal jiili summa nasi taarixa siratika al abha fa maa kataba kon nag xesma turidu ala amnin wa aafiyatin tara allati tatamanna dëhra muqtariba amin xes dundal xes yàlla na nga dund maa turidu li nga bëgg dund ci ay xat yàlla na ko dund donte junne at la xalaa am nañ ci kóolute ànd ak nag nekk ci sécurité kenn bu mu la mënal dara waa fiite ak jàmm ak jàmm ju ma sëkk ci yaram jàmmi yaram jàmmi xol jàmmi biir jàmmi biti taraa danga jis gis la si nga xam ne tataman naa da nga ko mébét addaara ci jamono muqtariban muy aji jege ba lépp looy bëgg rek ci Sénégal ak ci adduna bi ak ci diini ji nga am ko yàlla nga dund ba am loolu dund nag ci sécurité dund si jàmm am mujj gu rafet yàlla na ko suñu borom defal ñu ñëpp defal ñu an najaa defal ñu al aqiba te mooy al aqibatu lu xusna gi suñu borom wax ci alquran wal aqibatu lil muttaqin yàlla na nga dund maa turidu li nga nam xala am nañ ci kóolute mooy ci sécurité wa afiyatin ak jàmm tara da nga gis la si la nga xam ne tataman naa da nga koo mébét addaara ci jamono muqtariban muy aji jege